baal di baatale xaalis ñu naan muallim la nangam la nangam la nangam te mu jàng xam li muy xam mais te def di def lu ko neex pour lan loolu kan kooku dafay def lu ko neex ku mel ni Ahmed Cissé li muy def ci ak li muy wax li mu wax alquran yëpp waxu ceddoo waxu reewante dong la fi wax te li mu nekkee nag tabaarakallaahu sénégalais yee ko ci bàyyi xam nga euh, la tabaarakallaahu. régie jëlale Moussa s'il vous plaît. xam nga. Mm-hmm. xam nga tabaarakallaahu la waxkat ba waxoon. Hmm. ibnu xëyim al jawzi hmm. dafa waxoon ne bëri na kuy am xam-xam. yor xam-xam di dox ak moom. saytaani iblis. moo ko jàpp. ne ko yow moom maa la jàngloo ba nga jàng. ma defar la nag teg la ci pénc bi. mais yow mu muallim boo xam ne da nga toog ne da nga jàngale te waxu waxu yàq waxu caaxaan kese ngay wax. Euh, est ce que dara gënul yées nag ñëw taxaw naan alxuraan nangam ak nangam la ay nangam ak. ay léeb la ak ni ni mel. mais réewan dafa réew am na yoo xam ne boo koy wax ci dëkk bu am sariya sax leneen mooy tegu ci yow ngay sànq du cadre li léegi nag li ma bëgg wax mooy man waxuma ak moom ñi may wax ak moom mooy jeunes yi ñu yeew parce que bëri na ñu ci bëri koo wax mu naan man am Ahmed Cissé laay topp li mu wax noonu la parce que moom diine nangam ak nangam nangam ak nangam nangam fekk caaxaan kese ci la nekk. li gën a bon nag mooy boroom xam-xam boo xam ne naafiq la li gën a bon mooy boroom xam-xam boo xam ne du wax dëgg li gën a bon mooy boroom xam-xam boo xam ne day xool rek tabaarakallahu ni mu ko santere mu nekk loolu gën a yées. di fooy alquran. moo tax lim nga xam aljawsi nag nee na boroom xam-xam boo gis nag ñu naan boroom xam-xam bu xëyee jaar nii def nii def ko na ko neexee bu ko jàppee nangam ak nangam moo koy doxal. iblis moom nit mën na taxaw jàng ba fees del di def ay jëfinam. waaw ah, kay muy def ay jëfinu iblis de wax ay waxu iblis wax bi waxu lan la. waxu. waxu iblis rek la waxu seytaan subhanallah mhm. waxu iblis la. Mhm, mhm, dinaan ay du dëgg ak du dëgg yàlla day léeb ak subhanallah. reewan dafa man de dama lii ay dañuy taxaw xaar ma génn su ma génnee lu tax sénégalais bu ñu bu ma waxee nangam. Euh, ñu ñu jëlee ko nii euh, taxaw ne ma lan moo xew nangam ak nangam ma wax leen ko. nii la fi defoon wax waxam jot naan lan moo tax su ma waxee sénégalais duñ ma wax ne ma lan moo xew après ma tontu leen ci lu xew. mu dem ba mu yàgg mu ne li ma waxoon nag du du dëgg man maa ko waxoon rek du dëgg mais xoolal yëfu réewandi yooyu quoi mais alors si si dañoo yeb wallaay dañoo yeb. yaa ngi koy tàkkale nag de. daf ñoo yeb na génn ci yi mu nekk. bu dee da nga yor sa xam-xam jëfeel sa xam-xam. penc bi lu ñu fi xam mooy wax-wax ju baax penc bi lu ñu fi xam mooy fonk alquran. mais nan ngay taxawee ne yow tabaarakallaahu sëriñ nga jël alquran naan du dëgg. dinaan ay yàlla da doon lépp. da doon lépp. da doon xewaare yàlla am na jot boobu mais yàlla dafa am jot boobu. dama si sax dafa yab nit ñi. wax ju mu mus a wax nag wax ji mooy li ko gën a rëy alquran nag ni mu toll téere yàlla bi waxu caaxaan yi nag tabaarakallaahu nag dañoo bëgg nag nga dimbali ñu ci amal siise réew nga trop nag da nga réew mais da nga réew. ok alors la régie si c'est bon je pense que la vidéo de Soxna Marème elle est disponible alors dimbali ñu ci rek nga tegal ñu comme ça ñun jox Oustaz ndox mu sedd sax mu naan dafa xaw a yéeg tuuti alors vas-y la vidéo si c'est disponible.